Euh, di ci ànd ak yéen Abdoulaye Ndiaye ci technique bi ak Mourtala Gaye euh, tey jii la allah ñu fas yéene ñëw bu baax a baax ci les faits saillants de la semaine ce qui a fait l' essentiel de l' actualité bokk na ci lu soxal li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllum politique gis nañ ci assemblée nationale euh, lu fa xew doy waar lool bokk na ci ki nga xam te moom moo di l' honorable député Déthié Fall mi nga xamante ni taxaw na fa. fësal ay kàddu jëmale ko ci la ko fa yóbbu ngir euh, ca euh, jafe-jafe askan bi bokk na ci la mu jàpp ni la vision du chef de l'État président Macky Sall euh, donc doit quitter ñaajo pour rejoindre également la périphérie également yeneen gox yi yeneen diwaan yi loolee nag ngañ ñi gam ca ngañ yenn ci ay liggéey yoo xam dafa tële ci nguur gi loole nag président Idrissa Seck da ko metti ba nekk nag loo xamante ni jàpp nañ seen parti bi seen ligne politique bi ñu doxee mooy kenn amul droit ŋàññi njiit réew mi ni muy doxee ndax dëgg lay ndax moom mi di président sa Seck dafa ñëw jébbalu euh, ci parti bu njiitu président Macky Sall ci keppaaram bokk ci coalition boobule bëgg nag jébbaluwaale yeneen ci ay kàngam ñoom nag lànk ne duñ ko def ndax président Idrissa Seck ku nekk xam ne ni loolee mu yore di conseil économique social et environnemental di CESE euh, nekkoon na lu mu yàgg a ak HCCT jamono ji nag mu mel ne dañ ko gàccaal ndax président Macky Sall da ko ko jox ne ko kaay ñu gasul baamee suul ko fii ndax nag li nga doon bañ laa la jox ndax ku nekk xam ne ne la mu layoo euh, di prétexte ne crise actuelle bi di la crise sanitaire moo imposé à ce que mu dem liggéey euh, ci côté président Macky Sall ma jàpp ne loolu waxu politique la te Idrissa Seck euh, il a trahi toute la nation sénégalaise vis-à-vis de ses positions yi mu jël dernièrement par rapport ak politique bu président Macky Sall Déthié fal nag la mu def taxawaayu homme politique dëgg la mooy ñu bëri gindi na la ndax ñu ngi doon am njot tiitaange que mu bokk ci les quota bi nga xamante ni Idrissa Seck dana ko am ci gouvernement bi Déthié Fall nag nekk euh, ndaw boo xamante ni yàgg nañu gis ay position sur le plan politique qui défend également euh, lii di l'intérêt sénégalais l'intérêt général euh, tey jii mu am sañ-sañu taxaw wax loole ñu génne ko ci poste vice président bu parti boobee ma jàpp ne nag moom ndaw la boo xamante il a l'avenir devant lui il peut tenter sa chance euh, pour man sax loolu daf koy ubbil brèche à ce mu dem xool ñi nga xam ay kàngam lañ ci wàllum politique bi di défendre lii di askan bi li seen soxla waaye di ci faal nekk na koo xam ne am na fula ak fayda kenn du ko yóbbu la retraite à la retraite politique mu nekk loo xam ne position bu nit ñu bëri rafetlu jamono ji fekkente ni ci lay wéy dans cette lancée